Mame Ndiaye Savon kon man def erreur waratuma ci àddina li ma bëgg mooy ngeen comprendre ma benn affaire laa leen wax pour ngeen comprendre ma ci ma chérie man duma gaaruwaale kenn man sama marketing laay def man sama marketing xam nga lan la ay wax man sama marketing ay wax la man su ma tegee sama njaay su ma tegee sama njaay li may waxloo loo sax xawma ko man damay créer sax di wax ma leen wax man waxuma kenn dëgg la bien vrai que maam Ndiaye dafa mën a tooñ damaa mën a tooñ ndax man Sénégal lañu nekk Sénégal boo bëggee ñu siifur la il faut nga tooñ kenn man mën laa siifur tey bu ma taxawee naan la la la qu'est-ce qui se passe c'est que cest kenn du ma mais dama leen wax na leen man maam Ndiaye Savon man maa jug pour liggéey te li coow li di bari bari bari bari maam Ndiaye day tooñ day wax waaye da ciy boole liggéey man dama ciy boole liggéey waaye waxuma ak kenn maa ci da ngeen a xëy rek gis ma yéene leen ma jàmm ngeen bëggee am jàmm ku ma yéene wut jàmm barki leeru alxuraan am jàmm ndax man ndaw laa comme ni ma koy waxee chaque damaa jubbi ci pauvre yaru ci pauvre màggee ci pauvre rampe ba egsi fii sama famille ñëpp man la ñu yaakaar damay liggéey rek te yàlla rek tax léeg-léeg damay def ay folie mais léeg-léeg damay juum te bu ma juumee su ma pare am naa entourage bu ma naan juum nga tey wax nga lii ak lii te dama koy rectifier waat ndax man lu ma tëgg mën naa cee génn.